asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ah, di nuyu bureau bi mais particulièrement di nuyu suñu mbokk journalistes yi nga xamante ne nii teew nañ fi ah, di rafetlu tamit ndaje ndaje bi fi am nii ndax y a deux ans trois ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw boo waxoon réew mi ne ndaje bu mel nii mun naa am ay mbër yoo xam ne tolluñ si benn catégorie bi bokkuñu benn écurie mun a bokk benn jotaay ne dañuy xeexandoo benn bëgg-bëgg dañ leex amul boo waxee nit ñi fan ngeen teg ne amul ñu ne ay dof lañ mais tey ñi ngi sant yàlla xëy na esprit ñi ngi avancé ah avant dara di xew tamit ñu koy xamal suñu bopp di ko xamal suñuy mbokku mbër ak suñuy rakk yi nga xamante ne dañoo toog ci ginnaaw doy ñu yaakaar suñu xalaat ba lu ñu wax ñu ne ñu lu ngeen wax ànd nañ si lu ngeen def ànd nañ si Euh, léegi li ñuy njëkk a leeral ci bopp journaliste yi leeral ko ci bopp Sénégal yëpp mooy woote wuñ fi ndaje pour kalan ak kenn woote fi ndaje pour xeex ak kenn wala pour diir kenn ay bët wala laspeer naan pour yow la c'est juste dañoo bokk ci làmb nekk ay mbëri ndaw am lu fi nekk jiite ñu ñu koy wax association boo xam ne nee nañ moo tënk lépp luy mbër nekk Sénégal yaakaar naa suñu mag moo ko jiite ñu koy nuyaa passage muy Gris jiite benn association boo xam ne mooy association nationale ñu amaat fi leneen lu tudd CNG. làmb ji yaakaar naa bu fekkee 10 mille licenciés la bu ñuy compter VIP yi matuñu 50 VIP def nañ ci làmb 10 ans yoo xamante ne li ñuy bégalee Balla Gaye Eumeu Sène la Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye lii la ñuy bégalee amateur yi du rafle mbër VIP dañoo rafle ay VIP. léegi bu làmb tollee foofu kon ñu bëgg a jël licence yi bu nekkee 9000 licences yoo ci des lépp mbëri ndaw la di dund coono yi métti ci làmb àdduna yëpp teg ci bët monde làmb yëpp xam ko mais nag ñu ànd ak ngor mën a muñ toog fi ñu toog parce que dañoo am ay ñoo xam ne dañoo ñëw ngànk làmb na ñoo ñu jiite ñu am yaakaar ne ñooñu jaar nañ ñun fi ñu jaar tolloon nañ ñun fi ñu toll kon xam nañ coono gi fi ne xëy na bu ñëwee ba yegg si foofu noonu. non aajotul ñun ñuy ubbi suñu làmmiñ lépp lu ñu métti dinañ ñu ko waxal mais ñu gis ne mondu làmb coono yi ci gën a métti mbër mu ndaw a koy dund làmb bokk ci li ñu gën a xeeb ci senegal te ñu baal ma sport Sénégal bu weesoo football li làmb indil Sénégal ci trophée amul sport bu ko indil il faut ñu arrêté ñu bañ ñu nax équipe nationale Sénégal mu ngi nii bu doon football tey lii du am duñ fi dajaloo xam nañ fan la ñuy yem rate nañ penalty yi ngay dégg wala oo oh, kii moo waroon parté rek ñu ñibbisiwaat xaar déwén. mais équipe national bëre bi mosuñu koo yóbbu te gàdduwuñ trophée bi ñëw ñoo koy indi force équipe nationale yëpp yi nekk Sénégal sport yëpp bu ñuy tukki palais lañ leen di joxee drapeau palais président moo la ko jox équipe nationale yëpp du taekwondo du karaté du lu mën a doon làmb rek moo fi nekk équipe nationale boo xam ne bu ñuy bu ñuy tukki duñ gis président bu ñu ñibbisee boo maris lañ leen di wàccee ku nekk xool foo jëm ñii ñibbi Fatick ñibbi Fatick ñii ñibbi feneen ñibbi feneen parce que mbër lañ tegul fenn mais ñun dañ ko nangu woon départ bi imagineel dëkk ci benn gox dëkk ci benn gox yow sa mbokk fu muy jóge ci àdduna teetal ko yomb na danga naan wàcceel boo wàccee Pikine laajteel kër ñoom ondu la fuu rek boo wàccee Pikine foo mën a wàcc ci Pikine ñu ne ñu ne laajteel ko ñoom ondu la fuu mooy teetal bi léegi kooku ngeen bu ko jàppee benn nit koo xam ne tekkiwul dara ci làmb wala benn nit koo xam ne lii ba pare làmb nekk jëlukaayu exemple ci état bi état buy jël exemple ci làmb la koy jël mooy sanction danaan naa naa commencé ci mbëri ñoo ëpp doole dañ naan nemm bu ko defee koo jàll ci moom du wax étudiants yi ñu ci mat 80 kilo dañ leen di compter mais boo téye seen bourse une semaine ñu taal bii si ci dëkk bi yëpp lamb 10 000 licenciés nga xëy mu neex la nga ne na ñëpp dem chômage bu kenn liggéey tëj naa ko ñu ne ba kañ nga ne ba jusqu'à nouvel ordre mooy xamaguma na ñëpp dem toog bu kenn liggéey lijjantiwu ma nag fu ngeen di jëlee dépasse wala nu ngeen def ba lekk loolu sama yoon nekk si dem leen ci làmb rek la temps bi ngeen toog liggéeyul yëpp ñi leen yilif est ce que xam nañ nan ngeen di def ba lekk est ce que xam nañ na ngeen def ba naan mais c'est parce que jàpp nañ ne lii ay xar la lu ñu xiif xiif xiif xiif lu ñu mer di mbëkk poto yeeg lépp boo ubbee yor paanu ripaas dañuy dawaat ñëw sëgg noonu la ñu jàppee moo tax nu leen neex lañ koy tëjee ñun nag nekkuñu fii naan ay làmb waruñu ko tëj wala waruñu ko làmb war nañ ko tëj ndax ci réew mi la bokk bu amee lu xew ci réew mi loo xamante ne nii ay loraange mu ngi ciy am bu ñu jël ay décision làmb nekk ci réew mi tey dajale d'accord nañ ñu tëj ko mais est-ce que nii ñu tëjee làmb nii lañ ko war a tëjee ci loolu lañ nekk. mais lan moo tax tamit làmb nekk jëlukaay exemple ba lépp lu ñuy def làmb la ñuy njëkk a tëj te moom kese lañ tëj ñu tëj làmb dimanche lundi coupe de Sénégal ñu koy jouer. ñu tëj làmb dimanche man dama waroon bëri ci dimanche bi heure bi may takk ngemb la ñu doog xam ne làmb ju do am après garaawul lépp loo defoon sa làmb wala lépp loo ci financé woon wala lépp loo ci kii après amul problème heure bu ñu ko centré tijji dañ koy tijji na jël leen dadi mbër mu ci nekk dem débrouiller ji noo kiyee noo ko préparé te loolu yëpp tey maanaam am na ñu ñu gënoon positionné wu pour taxaw am àqal yelleefu mbër mu ndaw mun ñu koo waxal parce que dañoo jaar ci mbër mu ndaw ba tey suñu borom dimbale leen tooguñu fii nag pour ŋàññi leen tooguñu fii pour di leen jaxaseek àdduna parce que ñun dañoo ñaan yàlla mel ne ñoom dañoo ñaan yàlla yegg fi ñu yegg mais ñaan nañ yàlla it bu ñu yeggee fi ñu yegg suñuy rakk yi ñëw di toll si fii ñu taxaw leen ba xam ne ñun jaar nañ ñu jaar tooguñu fii pour di leen jaxaseek àdduna mais tey bu fekkee dañoo toog réew mi di tàkk ay bakkan di daanu lu ne di xew benn nit toog bureau woote France 24 ne Sénégal amul mars ay mbër ñoo toog gëj a bëree di taal dëkk bi. wax li muy wax France 24 international àdduna bi yëpp di ko seetaan mu ne mbëri ñooy taal Sénégal ok ñu toog di muñ ne am nañ ay njiit dinañ ñu ko waxal njiit yooyu toog ministre bi ne kaa leen sama bureau ñu ne nooy dañ faa demoon ministre bi moo ñu war a baalu kan moom mës a dégg ci àdduna kaay ma baalu la. ci àdduna loolu am na saaga la ndey nga war war laa baalu ne la kaay sama kër dama lay baalu te man man bañu ma ko ma wax kaay ma baalu na de mais bu ma ñëwee nga wax ak man man comme maa ñëw ci man comme président association jeune leader ma ñëw nga ne ma non li ma waxoon dama juum ma ne la d'accord naa ci mais amul problème man woote loowu ma la sax France 24 muy international mais comme ñi nga ko waxaloon ñëpp ñuy ay mbër dañuy seetaan Bantamba duggaatal 2S direct rek ne mbër yi man damaa juumoon nii mais man du maay ñëw sa bureau nga yëkkati li nga may jox jox ma ma génn ci biti naan mbëri na na ñëpp arrêté vidéo yi ñuy def ministre bi daa juumoon et après benn mbër bu ndaw toog gis injustice si làmb wax ko ñu ne ko dootoo bëre 2017 ba tey làmb yëpp entraîné ñoo ko kon en 2017 la gëj a bëre ndax lan am lu xew ci làmb mu génn wax ko làmb ree ñoo ko ne ko doo bëre mais ñun mbëri xam la moo tax mënuñu wax ku ci nekk danga naan man équipe bi ma nekk daa am VIP bu fa nekk te sama grand la des fois xam nga mu jox ma ay équipement des fois mu laal ma ay dàll wala lii wala ay laa munoo génn wax. pourtant tey association boobu nu ñuy tudd noonu bërki démb ki doon def vidéo magam bu mu bokkal ndey ak baay mooy président bi mu taxaw na la ñoom ñëpp amaluñ làmb njëriñ parce que ku ci nekk sa personnalité personnel ngay sàmm mais sàmmoo personnalité lem moom Maodo ak Gris Bordeaux ñoo bokk ndey ak baay Maodo moo ko wax ci na leen ñoom ñiy ànd yëpp. teg ci ne la ñoom ñiy ànd yëpp ci VIP bi kenn gëmu ci sa morom moom mi ko wax ak ki ko jiite ñoo bokk ndey ak baay dañuy déglu tamit suñu mbokk journaliste yi ñu naan est-ce que seen association bi ngeen créé am na njëriñ est-ce que ngeen demoon topp seen i mag topp seeni i ginnaaw nekkul woon mooy liy gën a arranger làmb est-ce que loolu nekkul moo gën ci làmb non moo gën ci làmb dëgg la mais est-ce que suñuy mag taxaw nañ tànk yoo xam ne seen i rakk war nañoo mën a ñëw topp leen. man man am personne association jeune leader bu ma gisoon léegi benn mbër bu ndaw génn def sorti naan association jeune leader nii ak nii ak nii ak te nee nañ mobile mooy président daa wut numéro ba am ko jël ko woo ko waa rakk gayan nu mu demee nii ba ma toog di dégg gis ngay def nii ak nii ak a xool lan moo na naqari bu fekkee association mën na laa convaincre jéem laa indi suñu biir ndax amuñu benn intérêt pour ñuy dépassé wu kii di jaar nii kii di jaar nii mais ñaata at yéen ngi def sorti gis Onde le Fou mi ngi def sorti ñaata at ñu ngi yi xam nga lan lañ si am toog di jot ay menaces ñu ne dinañ ñu tëj président association bee taxaw nee na dina tëj Onde le foofu dina tëj Mobile 2 dina tëj Kona mais ragaluñ loolu parce que kaso boobu du wéet man rek. ci benn sàmbur. mais est-ce est-ce que loolu mooy est ñoom loolu mooy seen réaction ak seen i mus naa ko wax ma ne fii mbëri mag yi fi nekk yëpp nañu def cinq ans ñu arrière ci ginnaaw xam ne mbër moo bëre ba def leen lu ñu doon. ñoom dañoo war a bëri ci làmb ba def ci nit lu mu doon ñu jaale suñu papa Mbaye Guèye moo bëri ba def Moustapha Guèye li mu doon Moustapha Guèye bëri ba def Gris Bordeaux li mu doon Père Balla Gaye moo bëri ba def Balla gay 2 li mu doon Lac de Guiers ba def Lac de Guiers li mu doon il faut ñu bañ a naxante ku ci nekk mbërë bëre ba génnee la mais ñoom kan lañ bëre ba génnee de te ñoom ñi leen génnee bi ñu leen génnee fayeekuwuñ li ñuy di fayeeku amuñu code bi ñuy am demuñu fii ñii di dem tey làmba ngi def lu nekk làmba ngi fekk mobile ci baraag yóbbu ko ci beneen niveau làmba ngi fekk mobile grand di ko yóbbu Amérique ak feneen ak feneen kon génnee mbër tey la gën a war a mën gën a yomb mais tey la génnee mbër gën a jafe liñ séq ak mbër mu ndaw mooy aloo foo nekk dañuy dem dîner suba yow it nga am sa benn matadi gu mat sa gàddu sa saak xaabar xaabar ñëw ñu teg la ci kanam oto bu ñu demee dîner nga nekk sa fukaay bi bu ñu yeggee gaal la ñu jox la sa macaroni bi nga ba suur ñu ne la ñuy bil nga dem ñibbi suba danga leen di woo 17 heures heure entraînement mu ne la damaa am rendez-vous yow nga noo salaam toog ne grand bi demul tey. moom mooy dem entraînement am moom amul envie dem nga mujj toog des fois xam nga woo ko mu ne waaye ñëwal gaal lañu teg caa tey nga ñëw nga nangu ko ñëw toog yow mbir mu ndaw bi nga nangu ko ñëw toog mais nag yooyu yëpp boo gisee ñu koy wax dañ koy fàttaliwante ñun suñu biir ñun ñëpp parce que ay mbëri ndaw lañ en plus nekk ak ay mbëri mag. am fu ñu jaar fu xaw a bëri ci làmb daj ci ay coono tey bu làmb demee ba mbër mu ndaw day jël cinquante mille francs jox ko promoteur pour mu.